yowaan ñooñu yor ni ko ñii dañ leen fee teg di leen saytuloo bokkut ak nguur nguurub zahir boo ko bëggee xam daal da dem ci ñëw ñi war giléem te yàkkamti wuñ bàyyi ko muy dox mu naan nii waaw mel na yow mu toog ci sa balance waar rek di coow ñooñu ñooy nguur noonu la tëdde gis nga gis nga Macky mii Macky mii su ma ko doon man su ma doonoon kuy mer su ma ko meree bu ma ko gis ci télé su ma ko gisee ci télé bu mer bi de

fekkee li ngay def daal yàlla taxul yaa ngi ñettale si yéen mënoo bëgg nit nag te yàlla tax ba noppi bëgg a xool leneen na nga bëgg a dégg leneen kon te yàlla taxul du dëgg nit boo xam ne wax si bëgg bëgg bi nga war bëgg lu ma mën a di def fekk yàlla lu ma mën a di def ngay gën di bëgg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 wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24